bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur réew Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di ci ànd seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi Jaawo Jallo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaaraka wa buur ma ñu baaxee ñu joxe xéewalu faratay jaamu yàlla ci ginnaaw tuuti muy julli suba waaye moo ñu xéewalal xéewal joo xamante mooy xéewal bi mu dëppale ci mboolem mbindaafoon yamu bind muy xéewalu nelaw ñaari xéewal yooyu amul kenn kalan yore kudut buur yàlla tabaraka wa taala moo koy joxe ku ko soob moo koy joxe num ko soobe waaye rawatina askanu jullit ñamu baaxe xéewalu waxtuy julli fajar ba jullit yi doon julli waxtu su néew ci ginnaaw ci jàkk ji ginnaaw bu ñu déggee noddkat bi di noddu muy wax ci biir noddu bi ne hayya ala salaa kaay leen joxe waxtu julli ba nga xamante ne mooy première rencontation ba ngeen di rencontre ak seen borom muy wax hayya alal falah kaay leen ci fa nga xamante ne fa ngeen di amee texe àddina ak texe alaxira mu daal di teg ci ñaari baat yooyu baat bu muy wax ne assalaatu julli assalaatu rencontation ba ngeen di am ak seeni boroom xayrun moo gën mina nawm nelaw ba ngeen nekkee di nelaw noddukat bi daldi di baamu loolu ñaari yoon ne assalaatu xayrun mina julli de moo gën nelaw ba ngeen nekkee di ko nelaw képp ku yàlla kattanal ba nga mun a yeewu ci waxtu woowu dem joxe farata bu njëkk ba ngay ubbee sa bés bi la ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa ne gën ci ci jëf yi walla gën ci jëf ba doomu aadama di jëf ci waxtuy julli yamuy julli yonent bi nee na waxtuy julli fajar yowmul juma mooy la ci gënal yàlla bépp waxtu julli ba jullit bi di joxe ki yàlla xamal la kenn xamul ki yàlla won la kenn gisut di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi moo ñu ne waxtu woowu mooy waxtu yu julli fajar bésu àjjuma ba nga def ci mbooloo bi waxtu julli boobu de waxtu bu yàlla sopp la kon nga déggee ci maanaa bi ba léegi yow doomu aadama bi rawatina yow jullit bi buñ na la ne julli sangam waxtu waxtu bu yàlla sopp la kon yow la war doon sa yitte mooy nga xar sa tànk tubee takk sa ndigg waxtu boobu mu war laa fekk ci béréb yañuy joxe farata bi nga xamante ne moom la jullit yi di joxe ci jàkk yi lañu jot a joxe ci jàkk ji yal na ko buur yàlla nangu yal na déppoo ak ngir màndem amin ya rabbal alamin bu ñu dajeek moom ëllëg keroog bés penc mu defal ñu ko xasanaatu fil mizaan amin ya rabbal alamin bur yàlla mën na ko sañ na ko am na ko yal nañu ko yàlla boole defal amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot xanaa ñaareelu xéewal ba yàlla xéewalal mboolem bindaafoon yamu bind mu yemale leen ci xéewal boobu mooy xéewalu nelaw xéewalu nelaw dañ ne nekkul ci loxo kenn kenn yor ko kudut buur yàlla tabaaraka wa ci nguuram la nekk moo ñu bindal la nga xamante ne mooy lañuy ñuy nelaw kattan boobu mu yore ba mu di ko baaxee lenn ci mbindaafoonam yi moo tax bu ñu demee xool ci saaru alquran ya fasante ko moom yàlla tabaraka wa taala mu di ñu baaxee mu ne ñu ci suratu zumar mu ne ñu bokk na ci kattan ya yàlla moom ta mu nekk fa moom moo tax mu ne ñu xéewal ba ma leen di yenkeewal mu doon xéewalu nelaw buur yàlla ne ñu allahu yàlla moo yore kàttan ba toll ni yatawaffal anfusa moy faat bépp bakken xiina mawtiha jamono bu ñuy soobu ci dee bu ndaw ba ñuy duppee nelaw walliti waaye bakkan joo xamante ne lam tamut fii manaamiha yàlla soppul ngir mu faatu ci nelaw bamuy nelaw noonu yàlla nee moy dogal bakkan jooju mu mel melokaan woowee pedre gi yàlla dañu won ne wa yumsiku allati mawt moom yàlla mooy jàpp muy moy muy rocc bakkan joo xamante ne namm na dogal na att ci bakkan jooju mu faatu bakkan jooju day daldi faatu wa yursilul uxra ila ajalin musamma moom yàlla moy delloo bakkan jooju weneen bakkan bi ci jëmm jëmmu génnee woon mu daldi ko yiixi bàyyandi ko fi néggandiku ko ba keroog àpp ba jooju di jot mu daal di ko faat yàlla ne yow doomu aadama bi inna fi daalika lépp la ma la joxoñ nii la fa nekk ci kawteef de ña ko war a mën a xelaat mooy li xawmin aw nit ngi nii ñoo ko war a mën a xelaat ñooy yatafakkaroon ñuy xelaat kawteefu yàlla moo tax mu ne inna fi daalika mu ngi ci li ma la joxoñ nii aayatan kawtéef li qawmin ñeen nit ñi nga xamante ne yatafakkaroon ñoo yero xel ba ñuy xelaatee kawtéefu yàlla na ko yàlla di déroulé subhaanahu wa taala yàlla ñu yàlla baaxee mu may ñu xel bay xelaat bay gis kawtéefu fu saa su ne ba léegi na ci xéewal woowu la ñu buur yàlla tabaraka wa taala xéewalal mu ne ñu wa min yi bokk na ci kawtéefam ya nekk fa moom yàlla manaamukum bi leyl nelaw ba ngeen di nelaw loolu benn la waaye jamono bu ñu koy def tamit loolu kawtéef la waaw mu ne manaamukum seen nelaw ba ngeen di nelaw kawtéef la ba ma yore man yàlla waxtu ba ngeen koy def di leyl ci guddi loolu tamit kilima jooju kawtéef la man yàlla maa koy installé seen kaw léegi mu bokk samay kawti fii wan nahaara ak bëccëg bi nga xamante ne dama leen di taalal projecteur bi nga xamante ne léppay leer muy jant bi ak bi léegi mu bokk samay kawteef ci bëccëg jooju ngeen di def wabtigaukum min yi ak sàkkuteef ba ngeen di sàkku xiiwal yama leen tasal ma palaase leen ko ci kaw suuf si loolu yëpp da di kawteef ba nekk fa man yàlla buur yàlla tabaraka wa taala di woon jàmbi mu ne ko inna fi daalika li ma la joxoñal nii moo nga fa aayaatin kawtif yoo xamante ne li qawmin ñeel ñoo xamante ne yasma'uun ñooy dégg la nga xamante ne moom la leen alquran di wax waaye moom la leen sama yonent bi di baaxee sallallahu alayhi wa sallam tax na yow jullit bi yow mi yore xel di xelaat nga yore say bët di gis nga yore sa xel di xalam kawteefu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu yàlla delloowee sa ruux bi nga ximmiliku nekkaat en jour nee na bés boobu nga war a dund da nga war a sant yàlla ci kawteef bi nga xamante ne baaxee na la ko won na la ko walla def na la nga nar a dund bés kon li la war mooy nga jàng ñaan bi de alhamdulillahi mboolem xeetu cant yi kawe nañu yàlla alladi buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baadama ma amatana gannaaw bu mu dogalee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy nelaw <clears throat> wa ilayhi nusuur waaye ci moom yàlla lañuy ñuy dellu bu ñu jeexalee dund bi ci kaw suuf si mbokk yi di tey mu doon yowmul jumaa ñu fas yéene leen dégtal len na loo xamante ne dafa bokk ci ngéneelu yowmul jumaa mu nekk uh, bés bi nga xamante ne mooy sangu bési ci weer bu tedd ba ñu nekk ni te mooy chahrullahil muharram mooy weer ba yàlla tànnal boppam te mooy weeru tam ñu di leen fàttali ne bés ni ki tey di yowmul jumaa ba ñu nekk ni mooy fukki fan ak ñett fukki fan ak ñett ci weeru muharram moo tombe gàdday yonent bi sallallahu alayhi wa sallam atum junne ñeent téeméer ñeent fukk ak juróom benneelu at muy mille tey mooy le ci weeru jullit ñi mooy weeru tamxarit ñu di leen fàttali ne rek des na suñu diggante weeri koor di ramadan weer bu mag bi deux cent vingt six jours moo des suñu digganteeg weeri koor ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala weer bu mag boobee buy ñëw yal nañu fi fekk waaye buy dem yal nañu fi bay te lépp luñ ko ñaan yàlla yan nañu ko nangul suñu jaamu yàlla mu néew ak a bëri yan nañu ko nangul yan na ko def suñu téere jëf yowman laa yanfau maalan wala banuunan illa man ata allaha bi qalbin salim bés bi nga xamante ne kenn du njëriñ kenn dara amul dara luy njëriñ doomu aadama lu dul ku fa yàlla nga ñëw ak xol bu laab xol bu nag bay doomu aadama di dikkee fa yàlla mooy bañ koo bokkaaleeg dara yal ñu ko yàlla wërsëgal amiin yàlla rabbal aalamiin mbokk yi yàlla jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot xanaa di leen fàttali ne rek waxu boroom xam-xam bi di xasanul basri rahimahullah mu di wax ne yabnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yawmuk zahaba baaduk yow doomu aadama bi xamal ne bés yi ngay dund moo rafet a xabaay ba tax na danga nga war a bàyyi sa xel ne bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne am na la wàññeeku ci sa dund kon ñu ñaan yàlla suñu boroom at bu bés ba ñu tàbbi nii nañ leen ko teeroo koor ba ñu wooroon juróom-ñeenteelu fan ci weeru tamxarit bi ak fukkeelu fan bi ñu ñaan yàlla nañu yàlla nangul suñu koor woowee ay xeetu jaamu yàlla ay xeetu ñaan yàlla yan fa ñaan te ñu jaamu ko ci yan ñu ko buur yàlla nangul su ko defee ñu tàmbali suñu registre bu mag bi ci at bu bees bi ak jaamu yàlla bu ñu naan sawum yan nañu ko buur yàlla nangul amin ya rabbal alamin mbokk yi ñaan ba ñëw ci calendrier ya ñuy wéttalante ki moo ne yow jaam bi dala war saa su ngay talal sa yoxo di ñaan sa borom di ko ne allahumma baa'it bayni wa bayna xataayaaya kama baa'atta bayna almashriq walmaghrib moo ne yow jullit bi dala war saa su ne ngay ñaan yàlla la nga xamante ne manuloo ko sa bopp amul kenn ku la ko mën a defal kon yàlla ma ko man te moom dong moo la ko mën a defal kon moom yàlla nga war a ñaan ñaan ba nga xamante ni moom la ñu jàng ni léegi moo ne del ñaan yàlla ne ko allahumma buur yàlla buur bu mag bi yow mi tilewul dara te lépp nga man maa lay ñaan baa baid bayni yàlla nga soreel sama diggante wa bayna xataayaaya ak sama ñaawteef ya jëf kama baat bayna al mashriq wal maghrib yàlla nga soreel ñaawteef ya ma làmboo yàlla nga ma soreel ak samay ñaawteef comme ni nga sorelee diggante penko ak sow jant ni nga sorelee diggante penko ak sow yàlla nga ma sorel ñaawte fii ma def comme ni nga sorelee diggante penko ak sow fa jant bi di fenke ak fu muy soowe nañu sorewaato yàlla nga ma sorel samay ñaawteef comme ni nga sorelee penko ak sow jën kon képp ku yàlla sorel say ñaawteef comme nu mu soralee diggante penku ak sow kon yow doo laalek ñaawteef yi dara kon yàlla bu la soralee si ñaawteef yi mu sorel la ñaawteef yi mu xëcc sa diggante ñaawteef yi comme nu mu xëcc comme nu mu xëccee diggante sow jant ak penku ah kon yow waxuma doo def lu ñaaw waxuma lu ñaawee lu ñu tàbbi si say mbir de mais dina jafe lool ba tax na ñu nit ñu koy tàllal loxo ñu di ko ne allahumma bur yàlla baa'it bayni wa bayna xataayaaya yàlla nga sorel suñu diggante suñuy ñaawte fi kama ba'atta bayna al mashriq wal maghrib comme ni nga sorelee diggante penku ak sow amin ya rabbal alamin yenn ñu ko yàlla buur defal amin mbokk yi xadis ba ñëw ci suufu ñaan bi mooy an jaabir bun abdullahi radiallahu anhuma qaal jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi ñu naan jaabir bun abdullah di doomu abdullah yal na leen yàlla gërëm ñoom ñaar jaabir nee na qaala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam yàlla muhammad moo leen masa baaxee ne leen uridat alayya annaaru fa raaytu fiha imraatun min bani israil tuazzabu fi xirratin laha rutabataha falam tutcimuha walam tadaaha taakul min xashaashi al ard rawahu muslim ka yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu jaabir radiallahu anhuma yonent bi nee na uridat alayya naar dañ maa musa gaaral safara ñu won ma ko fa raaytu fiiha imraatan ma gis fa ab soxna soo xamante ne soxna soosu dafa bokk min bani israil ca waa banu israil tuazibu fi xirratin laha rutabataha ñu di ko mbugal ci muus bu ndaw bi nga xamante ne daa yor xol ni moom waaye lu tax ñuy mbugal ndaw soosu ci safara si lam fa lam tutiha fa lam tutimuha daawu ko jox ñam walam tadaaha taakulu min xasaasil ard bàyyi ko tamit muy fortaatu ci suufu yàlla si mu war a lekk la ko yàlla wërsëgal ci xeetu sax ya mu wara jëfandikoo ci kaw suuf si ba tax na ñu mbugal ndaw suuf suuf si safara si bi maana lañu war a mën a déggee ci maana xadis bi bari na lool waaye ñu tënk ko rekk ci waxtu bu gàtt ba ñu yàlla sëgal ni yonent bi sallallahu alayhi nee na dañ maa mës a safara ñu won ma safara ma gis fa ñu di fa mbugal ab soxna ah waaw waaw moo soxna si lu mu def sallallahu alayhi wa nee na soxna suusu waa bani israil ca la bokk ñu di ko mbugal ci safara mbugal bi lu ko waral mooy ndekkite yow moom dafa musa piniir ab muus bu ndaw ba yore xol ni moom mu piniir ko bañ koo jox lekk bañ kaa jox naan mu bañ kaa jox tamit wërsëg ba nda ba yàlla palaasel muus bi ci kaw suuf si ndaw si jël muus bi piniir ko joxu ko lekk ba jóge ko ci ndaw si joxu ko ndox ba jóge ko ci moom waaye bàyyiwu ko tamit muus bi di fortaatu la ko yàlla palaasel ci kaw suuf si ay gunóor ya mu war a jëfandikoo walla li mel ni la muy lekk ci la ko yàlla wërsëgal maanaam xañ na muus bi ñaari mbir ndaw si dafa punir muus bi bañ kaa jox la mu moom moom ndaw si bañ na kaa jox lekka la muy lekk bañ na kaa jox ndox la muy naan ndege moom moo yore lekk yi mu ko war a jox mu xañ ko muus bi moo yore ndox ba ko ba mu war a jox muus bi mu xañ ko ko waaye la yàlla palaaseel muus bi ci kaw suuf si ngir mu ko jëfandikoo mu xañ ko loolu tamit ah kon kii tooñ na muus bi kat waaw moo tax yonent bi nee moo tax ñu di ko mbugal ci biir safara si kon ba léegi mbokk yi ñu war a déggee ci maanaa xadis bi bay ma boo xamante ne amuloo dara loo mën a jëflanteeg moom ci lu nooy mënoo am santiment ci moom ngir nga njëriñ ko la mu tële ngir nga jox ko la mu war a lekk joxuloo ko sa lekk joxuloo ko la muy lekk géemuloo créel ko béréb joo xamante ne fa lay fekk sa lekk moom it mu di ko jëfandikoo bàyyi ko la ko yàlla wërsëgal ci kaw suuf si muy jëfandikoo loolu ndax yàlla moo ne wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha amul benn bakken amul benn bakkan bay dukkat ci kaw suuf si lu dul buur yàlla moo koy wërsëgal lu muy jëf lu mu war a jëfandikoo comme yow dankaa xañ la nga moom dankaa xañ sa moomeel kon bàyyil muy jëfandikoo la ko yàlla wërsëgal waaye nga punir ko la nga moom nga xañ ko la nga moom la ko yàlla wërsëgal tamit nga nar koo punir loolu ah su boobaa nag bala yàlla punire ngir dafa am la nga jëflanteeg mbindaa foon ba mu sàkk wàcce ko ci kaw suuf si ah bala yàlla punire tamit médité nga ko de waaw ah, waaw kon ba tax na yow mi yore sa ndesitu ñam boo ko dul jox mbindaa yàlla yi nga xamante ni munuñu munuñu lu munaluñu seen bopp dara kon bu leen pinir la leen yàlla wërsëgal ci kaw suuf si mën nga kaa xañ la nga moom loolu yow la waaye nga pinir ko tamit xañ ko mu bañ a jëfandikoo la ko yàlla sedd ci kaw suuf si kon loolu tooñ la ba tax na yonent bi nee na uridat alayya naar dañ maa musa woon safara fa raaytu fiiha imraatin min bani israil ma gis fa ab soxna si nga xamante ne dafa bokk ci waa banu israil tuazibu fi xirratin laha rutabat rutabataha ñu di ko mbugal ngir dafa musa pinir ab muus bu ndaw bi nga xamante ne dafa yore xol ni moom lam ko doon pinir mooy fa lam tut im ha daawu ko jox ñam daawu ko jox naan walam tadaaha taakulu min xasaashil ard te bàyyul bi tamit muy fortaatu la ko yàlla wërsëgal ay xeetu gunóor ya ko yàlla wërsëgal ci kaw suuf si xañ na ko mu lekk loolu tamit xañ nga ko sa xañ nga ko la ko yàlla tasal ci kaw suuf si ngir mu war a koo jëfandikoo kon yonent bi nee na lii moo tax ñuy mbugal ndaw soosu ci safara keroog buñ ma wonee safara la fa nekk kon képp ku dégg maanaa xadis bi war nga war a mën a am ñeewent war ngaa mën a am xel bu tooy war ngaa mën a am xol bu toll ni nga war a mën a jëfandikoo al lutf buñ ne lutf mooy nga am xol bu nooy compréhensif jëmmale ko ci mbindaafoonu yàlla yi nga xamante ne yàlla buur bi tabaaraka wa taala moo leen wàccee ci kaw suuf si ngir ñu war a mën a dund ñoom ci anam bi nga xamante ne moom yàlla noonu la ko soobee subhaanahu wa taala tax na noonu la ñuy mën a déggee maanaa xadis bi ñu gis ne ndekete buur yàlla tabaaraka wa saa yu mu baaxee doomu aadama bi lenn loo xamante ne xeetu wërsëg la danga ko war a sëdd danga war a sëdd yàlla ci lam la wërsëgal nga bàyyi xel yàlla ci lam la wërsëgal ba tax na lépp loo xamante ne lu néew doole la walla lu néew kàttan la nanga ko bàyyi xel su ko defee keroog bu la yàlla gërëmee ci gest bu noobul yooyu ngay jëfandikoo ci mbindaafoonu yàlla yi buur yàlla tabaraka wa dina la fay peyor bi nga xamante ne keneen ku moom munu la kaa fay waaye keneen ku moom munu la kaa jox kon lépp loo xamante ne dafa yore xol dafa yore xol bu tooy loo ci mun a jëfandu loo si mun a jëfandu nang ko si def su ko defee buur yàlla tabaraka wa taala mu fay la la nga xamante ne mooy yiw loolu la la koy yóbbee mooy da nga war a am jikko joo xamante ne da nga war a am teggin sa digganteeg sa borom buur bu kawe bi ndax moom mooy buur bi nga xamante ne moo taxawee sa lépp moo taxawee sa lépp ba tax na nga am teggin bi nga xamante ne moom ngay tegginu sa digganteeg sa boroom moo xam teggin ba ngay am sa digganteeg sa borom ci lu nëbb la wala moo xam teggin ba ngay am sa digganteeg sa borom ci lu feeñ su ko defee nga nekk ci koo xamante ne dangay am adab an ataaddabu ma allahi tabaraka wa taala wa huwa qiyaamu bi diinihi nga nangoo nekk ko am teggin sa digganteeg sa borom nga taxawe lépp li nga xamante ne diine bu mu wàccee ci kaw yonentam bi sallallahu alayhi wa nga nekk nekkin bi nga xamante ne noonu la la yonent bi jàngal ne nga nekkee ko noonu wa taaddabu bi aadaabin zaahiran wa baatinan wala nga daldi am teggin sa digganteeg sa borom ci anam bi nga xamante ne mooy anam bu fis mooy anam bu fis wala anam bu nëbb ndax yow jullit bi danga nga war a am teggin sa digganteeg sa borom ci anam yoo xamante ne moo xam anam bu fis la wala moo xam anam yu nëbb la waaye nag lu jiitu nanga teg sa tànk ci fala yonentu bi ne sallallahu alayhi wa fii nga war a teg sa tànk moo tax boroom xam-xam bi mu daal di ñu baaxee eh, ci maana kàddu ba mu wax ni an ataaddabu ma allah nee na yow jullit bi danga war a am teggin sa diggantek sa yàlla tabaraka wa taala buur bu mag bi wa huwa ndax moom mooy buur bi nga xamante ne alqiyaamu bi diinihi nga war a taxaw ci moom nga war a góor-góorlu nga nekk nekkin bi nga xamante ne moom la la diine santaane nga nekke ko nga tegginoo ak sa borom ci anamu diine num la ko jàngalee wa taaddubi bi aadaabin zahiran wa baatinan waaye bi léegi danga war a doon koo xamante ni da war a am teggin ba nga war a tegginawoo sa diggante ak sa borom teggin bu fis walla teggin bu nëbb su ko defee nga dund ak noonu sa borom subhaanahu wa taala nga nekk borom jikko ju sell nga nekk borom jikko ju noobul nga nekk koo xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala dalay accepter sa muamalat ak say ibadat yëpp yalla na ñu yàlla yombalal ñu war a mën a tegginewoo ak yàlla teggin bu mucc ayib moo xam ci lu feeñ la moo xam ci lu nëbb la mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar yaa ngi nii taxaw ñu war leen dibbal béréb bi saa ilina mawla jalla wa ala an yataqabala minna wa minkum saalihu amalina allahuma aminna fi awtaanina w aslih illahumma aimmatana wa wulaata umuurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aminna fi awtaanina w aslih aimmatana wa wulaata umuurina allahuma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa salli allahuma wa sallim wa baarik ala nabiyina muhammad salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu